suñu liste amul lam lamé moy gën ci liste bi waxuma liste Benno Bokk Yaakaar nga xamné ne Benno légui tas yaakaar la waaw tas yaakaar mom clair man fa la ne bu baxone duma fa joggé jóge da xuma kenn jëlewuma fa ma fa génné sama bop ci 9 h lépp fekke dama né ngeen xol yeneen liste yi amna na benn liste bo xamné suppléant lañu lañu la bon doo fi bàyyi nag roue normal di jël roue de secours wala surtout bu dee roue de bu ñu da bu daax daaxaat ko et ñoom seen wàllu bopp nee nañu seen roue de secours boobu xamuñu ko xool leen ki docteur docteur Jean Birame lu mu wax xam-xam la déglu ngeen ko léegi xam-xam la waxee xel la waxee ak tey ak dal kii ku ko xool xam ne ba ilaa yow mi din du taxaw di saaga mun na weranteeg yow bu mu tàng bu moytul bu ngeen d'accordul mu rocceeku ndànk bàyyi la fa mais du saga du poñ du la poñe du la dor du la xé du xeex ak yow loolu moy loolu moy dirigeant nit dañ koy tan tay jikko dem maam yi kenn du tan ko xamné 1 2 3 mu né dama lay poñe wala dor la wala saga mais fi dañu dem ci élection locale yi wees war nañu yé dañu tan ba tan ben conseiller bo xamné spécialité est saga ci saga c'est-à-dire saaga ba ñu ràññee la ba yow léegi mot nga conseil municipal amul benen, amul benen qualité bu tax ñu tànn ko xam ngeen fu may waxee après gars yi toog may dégg suma gars yi wax sàmm jikko yi di naan am na ci ñoo xam ne ci ñooñ la ñu àndal c'est-à-dire dañu ànd ak Yewwi pour être clairement loolu tax man affaire sàmm jikko yi d'accorduma ñu ñuy jéem bu dee dañu am seen programme politique nañu def seen langue politique bu comme ñenn ñi dañu far dafa am fuñu far dañu assumer fuñu far fi mu leer nañ parce que mun leen wax sàmm jikko yi gars saga di menacer di def leen waxu leen ci dara ba après taxaw ne dañuy def concours dañuy def test dañuy def euh, euh comment on appelle ça di auditer euh, auditer candidat yi xol kan mo ci gën programme mais gars saga yi fan ngeen leen di def gars yi xam dañu def.

def école normale de magistrature nga def nek magistrat ñun ñep xam nañu lan moy magistrat ci Sénégal lu pratiquement lu la neex def nga démissioner fekk jappo ci leneen du da nga am benen métier nga démissionné déedéet da nga démissioner wax xetlu ci yalla 4 ans durant amo benen métier am déet kooku buñuy buñuy buñuy xol ci jikko yi du xol ci kooku bu ñu teg royukaay du ñu roy kooku doo ko dégg mu saaga te am na fulla am na fayda am na xam-xam